waaye Pawlish ngi nii. waaw sama nit yaa ngi nii de. li sa ngi nii mi ngi ànd ak gram. waaw waaw. <laughs> sama rakk la li tax li tax sama xol bi seet aw ma wecc. li li ma sama xol bi seet. li doon doon ñaan yàlla lépp lu lépp lu waay di def. na ci ànd ak fulla ak fayda. dëgg la kii eh, am na fulla am na fayda nangu la liggéey. gëm na ay famem mhm. gëm na bëgg na yaayam bëgg na maamam bëgg na ay xaritam bëgg na doomu ndeyam Waly Seck bëgg na ma man mii di nga xam ne maay bàyyi Waly maa ngi koy ñaanal bisam bii doom yi seexam yi yàlla nañ judd ba am ndey ak bàyyi yàlla nañ judd ba ba ñu màgg ba ñu fekk ba mu fekkee seen i njëriñ si kàttanu yàlla ak jëmi na Mohamed leen rek laa koy wax mhm. euh, bu ko dara jaral mhm. mu yëg succès te xam naa ne sax yëgul succès ndax doxewu ko waxewu ko moom Pawlish maa diggante moom ak doomu aadama yi yi mu amal jàmm yëpp yal na yàlla yokk jàmm ji diggante moom ak waal yi yal na yàlla yokk jàmm ji ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa kaw te kanam yal na yàlla tey am ngénte ñun maa ngi ñëw leen tey maa ñu ñoom <laughs> ngénte de doom yombul bilaay déedéet bu la ko yàlla da waxtaan ak moom su ma deewoon tey ñu rek moo dama koy tàgg ji moo yéen a ekkale moo bi ji moo ji moo tax woote moo tax woote sama xol bi moo ba pare eh? mais Paul Jaga sante doomu soxna nga ko amal baax na am jabar waxoon nga ma ko de jabar ju baax jabar nee nga ma pakoo jabar ju xam àddina nee nga ma pakoo sama jabar wàllu la àddina looy def te waxoo waxi dof yu am barke li barke moo ëmb lépp doom daa yomb yàlla da kaa assuré kenn yàlla da kaa wax kenn naa la may doom yàlla da kaa wax kenn yàlla dénk ma ñaari ban ak jigéen. mu nekk ji. moo ba pare ngeen te biir ci clinique clinique ñoo ko amee ci waxi dof rek baas baa ngi ne kii nag sama xarit la kii mooy jaraaf sama doomu ndey la sama lépp la sama xarit la sama amee doo faa kii mooy jaraaf jaraaf sama xarit àndal leen ngeen ci baax ma ñëw wàcce soxna ci dëkk bi toog ndeysaan ji <laughs> moo ji doom dafa sax ci ci ci xol. waaw rawatina ay seex. ah li ay mbégteeg la ñuy la ñuy la ñuy wax rek santaat gën a santaat yàlla. police moom sunu sama xarit la man moom du tey. moo tax ba lii amee dañoo gën a santaat yàlla quoi xam na ni seex yàlla euh, yàlla da ko jox ku ne. dañuy yaakaar ne police dafa doxal dafa affaire yooyu mais yàlla dañoo dañu dafa gën a firndeel nii yàlla dafa ànd ak police. Uh-huh. ndax ay seex yàlla da ko jox n'importe tey nag ñoo war a ñoo tudd suñu doom mhm. suñuy seex góor ak jigéen moo loolu gis nga yàlla def li li gën saxul def xale bi ñu ngi fi ñu ngi si clinique lañ nekk di ba léegi génnagul ndax muñu mun ñoo ba mun ñoo mun ñoo gum bàyyi suñ suñu soxna si quoi mhm. gis nga moo tax ñu simplal ko quoi waaw ñu simplal ko quoi defal ko simple rek uh-huh. en tant que xarit lay sa doomu ndey indi ay seex boo ko gisee xam ne lu si kontaan na uh, yan message nga koy gën a dénk ndax doom nag dafa sax si xol ah dañ koy gën a wax gën a góorgóorlu rek a góorgóorlu xam na ni te léegi doonatul police bu avant léegi dugg na léegi su ma waxee sax dugg na cour de naa gën a gën a dugg cour de duggoon na cour de grand sax léegi gën a dugg cour de grand ndax kilifa la léegi mm-hmm. yor na soxna yor ñaari yor yor yor ñaari doom yàlla defal na ko ay seex te seex yàlla euh, te yàlla dox jox seex n'importe qui mm-hmm. su ko joxee rek xam ne yàlla gën a gën a yokk dayom gën a yokk darajam gën a yokk dayam gars yi gën kaa bàyyi gars yi gën kaa war a gën a bàyyi bàyyi war xel waaw macha allah jërëjëf mon frère. ok merci kontaan naa si. salaamaaleykum. yéen dafa yéen a ngi si jàmm. sant alhamdulilah. macha allah. koo vous allez. sant bu baax. alhamdulilah. ñu waaw di la ndokkale yow tamit macha la. waaw ah, macha allah macha allah seen xarit seen rakk moo xewle. waaw dëgg la dëgg la ci Pawlish Mbaye rawatina mu eh, tey doon bésu mbégte yan kàddu nga ciy sànni. waaw waaw waaw waaw xale yi yàlla nañu màgg ba am ndey ak baay. di ñaanal Pawlish aussi ak euh, soxna si yàlla ñu dund ba fekk seen i njëriñ. ñu am ci mbégte nag ak contentement. Mhm. ndax Pawlish suñu frère la ku ne xam ne Pawlish faramaare bu mag la mhm. nekk sunu frère nekk sunu lépp kon donc bis bi sunu bës la bisu mbégte la bisu contentement la bisu fierté la bisu euh, fête la. kon nag gars yi nañ ko nañ ko nañ ko féete rek. waaw kàddu yu gàtt. amoo jàmm moo frère ay nasaraan ñoo nekkoon ci ginnaawam di ko malaxal di ko misugal salle bi ñu toogit bu nee saalu 2000 places 1800 personnes yi ay sénégalais lañ yeneen 200 personnes yi ngi génne gis kay africain ak ay sénégalais ak yeneen i xeet. wax dëgg yàlla kon loolu mi ngi wane ne liggéey bi mu ngi évolué wu musique bi it mi ngi dox kon moom dañ koy ñaanal studio de répétition yeeg studio d'enregistrement yeeg soirée yeeg li mu ci mën a doon benn objectif la mooy drapeau Sénégal bi jug ca kaw ndax mooy ambassadeur de la musique sénégalaise c'est le king of the king le roi de la musique américaine sa majesté président son excellence kon li ñu ko ñaanal rek mooy li nga xam ne yéene ko ci musique bi ca bëgg ko mu téye drapeau bi wasaare ko à travers le monde Sénégal gépp ak àddina gépp mën a bàyyi xel musique Sénégal yal na ko ci yàlla defal ndam ak tawféex li ki des danañ amaat yeneen jotaay danañ ko wéyal incha allah ñu ngi ne image Wally Seck dafa late yow lan nga siy wax waaw mais ñooñu li ñu bëgg a wax rek la ñuy wax ak li ñu xalaat wax waaye eh, ku dee ci marché yaa tàgg sa bopp waxee wolof njaay ku dee ci marché yaa sa bopp waa luy liggéeyam waaye musique la mooy yitteem nit ñi bëgg lan mooy mbégteem fu ne mu fees ah kooku bëgg nit ñu gisoo ku ñu gis maytul ma ku yor njariñ ba nopp foo ko fekk mën a fatu naa yorul dara maa la ko kuñ na njariñ la yor foo ko fekk mën a tëju naa dama xat dama nekk ci ay yëf baal ma ko ba kanam baa ko fatu jug dem yorul raxmatan lil aalamiina yërmande ku mu nekk ci yow da jege mbooloo mi ngi jariñoo ko yónent yi yàlla mos a yónni yëpp yónni wu ci kenn ne ko tëju ci néeg yónni wu ci kenn ne ko yemal ci sab saal au contraire dina ni yéen ba noppi dig leen leen ñu gàddaayee dëkk ba ñu nekk tàbbi ci yeneen dëkk ngir jariñ ak passé li nga xam ne mooy message bi nga xam ne mooy la message di jël kon nag président li ko war mooy di génn di dem ci marché yi di génn di dem ci foyer yi di génn dem ci restaurant yi ak salon de coiffure yi di génn dem ci école yi mbootaay doomi aadama yi daje parce que loolu la ko yàlla nag toog ci àdduna ñu yàlla nag too ñu war a xëy di làkkatu ak di daw a ko tëju ñu ngi koy def de parce que nag tubarkàlla macha allah am na loo xam ne bu ko doon liggéey tey du bëgg ko gis de am loo xam ne tey bu ko doon liggéey ci dëkk bii wala mu ko doon def dana tal leneen lu dul ko ko filmé ak ku ko gis ndokk yàlla nag ba mu nekkee ci njub ak maax sutura ak teraanga ba dawul kenn làkkatul kenn ku bëgg filmé ñëwul filmé ku bëgg vidéo ñëwul vidéo ku bëgg interview ñëwul interview parce que li ngay yëngu moo ko laaj li ngay jaay moo lay jaay su ma bàyyi Alioune Kassé ko wayoon en 1994 muy caabi bi li ngay jaay moo lay jaay. vive la musique sénégalaise jërë ngeen jëfati. ah mon fils mais comment tu vas. mes respects mes respects. tu vas bien. ba yaa ngi ci jàmm ndokk ndokkale je suis content. je suis content. je suis content. jërëjëf jërëjëf nit amul lu bisam. dëgg la yaa moom mbay. sama sama bés bi tey mooy sama mhm. mhm. parce que nit lu lu bisam tey ci àddina am. amul lu dul man lii ci àddina lii la am lii la am ci àddina. Mhm. tey nag bu la ko suñu borom mayee. te liggéeyu suñu borom yàlla may nii naa ko te yàlla dafa wax ci àddina mayul diglewul alal dinaa la ko may diglewul ne di nga gudd fan diglewul ne dinaa la may doom su yàlla may ay seex nga teew ci dama ciy sant suñu bopp sant yàlla dina ci gërëm yàlla yàlla jërëjëf jërëjëf te bés bii rek mooy sama bés sama àdduna bés bii laa am ci àdduna mm-hmm. bés bii rek laa am ci àdduna ku nekk sa bés la mm-hmm. bés yi mooy sama lépp ci mm-hmm. àdduna du ma ci mer du ma ci fulu du ma ci def lenn tey lu ma doon def nit ci lu bon wala lu lépp ci àdduna bés bii tey dina tax ma bàyyi lépp ci àdduna kontaan naa yàlla yàlla li nga def li la kilifa ci def li nga def li la ndaw leen def yàlla yàlla suturaal yàlla yàlla gën a taxaw da jaay Seydina Muhammad loolu ma soo def ci àdduna loolu ma soo wax ci àdduna maa ngi ci jéggul parce que bés bii rey nga ma gàcceel nga ma jaay nga ma àddina te li mooy àddina yal na yàlla sutura yal na yàlla taxaw kontaan naa lool suma rakk nga suma xarit lool yal na yàlla taxaw jërëjëf te doo ma def dara amal jàmm gaay